aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara waaye di leen bëgg bu wér di yëkkati kàddu yoo xam ne day kàddu ndigal yu bàyyi ko ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te may ko wér wàcc ci suñu jóoruñ ji toog ñu feggoo ak moom muy sëriñ Cheikh Mbacké moom sëriñ Abdou Latif mu am lu mu bëgg a leeral ndigalu lu bàyyi ko ci sëriñ bi jaar ci jëmmam ji ngir mu àgg ci mbokk jullit ak mbokk taalibe kon ñu déglu sëriñ Cheikh Mbacké moom sëriñ mbokki jullit yëpp rawatina mbokki taalibe yi. da jot luy ab nuyoo bu jóge ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Cheikh Mouhamadou Bassir muy sunu yaakaar du sunu royteef du sunu kilifa. te def ak yoonu murit wépp waaye di soppeek di soppeeb jullit yëpp na ñu dëkk Sénégal ñëpp moo xam ñuriti jullit ay soppeem lañ sëriñ boo xam ne mi ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal di bu baax a ndax xam na cofeel gi ñëpp am ci ji ba tax na ñëpp ñu ngi waaxu di jëm si ci moom moom itam mu amal leen cofeel gu toll noonu cofeel boo xam ne ba sañoon ku ñëw da ko gis mu toog yow yaataw yow may la ci boppam lu yaatu ndax yitt ji nga xam ne nit ñi am nañ ko ci moom moom itam moom ci nit ñi ak yaatu rek moo koy moo ko mën a maye waaye nag da ci am loo xam ne dañuy dem ba jamono moo ko dul maye duñ ko bëgg-bëgg sëñ bii nag toll ci jamono boo xam ne ñu liggéey bi gën a bari ci moom ndax eh, nit nit ku baax lu mu gën a jege boromam gën a galfan di gëm ak boromam te ku ñuy dem ba ne tuddee la sëñ Tuubaa itam noppi nga am ak yaatu jëm ci ci àdduna ñetteel ba nag mooy ñëpp nangu ne luñ ko bëgg-bëgg ak ndoomu aadama day am moo tax ak man ak télé nag bokk na ci li nga xam ne su borom da ko dogal ci doomu aadama sëñ bi ku ne xam na ne lim bëggoon ak lim daan def ak nim mu ko daan defee ma de mëneetu ko nii ak lu mu ko yéene yéene ak lu ko bëgg bëgg ndax wolof yi dañuy wax ne xol du màggat waaye jëmm moom mooy màggat nit ki day dem ba ak jamono yoo xam ne yàlla moom dootu man lam manoon donte xolam dana ko yéene dootu ko mën ku ne xam na ne moom sax ni muy defee ni mënul yàllaa ci dugg ak pastéefam bu bari ak yitteem ju kawe nekkoon kon li mu mën sax du ko mën moo tax bi loolu amee liggéey bi moom mi koy liggéey ak nun ñii ci ne ci am jàpp ci li ci jàpp seen kem kàttan da ci jàppale nuy seet nu muy gën a yaatoo ak nu muy gën a xa ci moom ñu di ko yéem a tëral ndax li mu ci mënta ñàkk nit ñi mënuñu ko mënuñu ko ñàkk ci moom ñu di ko mën a am moo tax kon xam nañ ne fan yi lañ jotoon ndigalul fan yi muy dem ci nit ñi ñeenti fan la woon ci biir ay bis yi mu doonoon gaaw dibéer ak altine ak alxames ñu àggoon ki nekkoon ne alxames ji dañ koy boole ji fan yi muy nekk ci biir àggale ay jaamu yàlla ak noppal yaramam tuuti ma des ñetti fan yi gaaw di wér altine bi loolu amee xam ngi mu xam ne ñëpp ñu ngi ko dëgmal si daayir yi bëgg andi seenum liggéey nit ñi cofeel yi bëgg ñu bëgg ko seet nammi ko si yaroog cofeel waaye nit ñi itam képp ko am soxla walla nga am jiite da ngay jàpp ne boo jàkkaaroo si ñu mën taxaam ñaanal la ci soxla sa da nga ko amee nañ ko bëggee moom itam loolu la xam ba tax ba sañoon ku fi ñëw gis ko loolu nag moo tax ñetti fan yi itam noon sax xam na ni da ko bëgg waaye mënu ko waaye lu mu ko tële tële dana ko jéem muy gaaw diwéer altine mu waxoon ne nag kon daa bëgg bu bu dee bi jëm ñetti fan yooyu di ko def ba décembre bi dee bu ñu fa jógee mu jëm yoonu Poroxaan yoonu Poroxaan ni mu ciy daa waxoon ne kër yi boppam yaa nga xam ne fu mu ne tiib kër sëñ Basiiru gi nga xam ne daa bokk ci kër yi sëñ Basiiru yu mag yi mënut noosooti ko waxtu ne mu dafa dem mu bëgg lu néew néew at mu ne mu dem fa benn yoon gi nga xam ne fa ko sëñ Basiiru dëkkaloon muy këram gu mag moom itam mënut mu bëgg lu mu néew néew bëggoon nag boo jógee bay dem Poroxaan jaar tiib jaar mbul waaye mu ne lool nag daa bëggoon itam bu koy def waxtaane ko bokk yi taalibe yi ñu xam ne faba barab bi xat na dafay nekk dana néew mu bëggoon bokki taalibe yi nag may ko bu nekkee tiib ñu bàyyi waa dëkk ba rek ñu siyaare ko te bàyyi te ñu may may ko ba jàll ba fa jógee bu demee mbul noonu tam ñu may waa dëkk ba rek bu ñu ko fa duyoo la ca des ñu muñ mu muñ ndax du fa yàgg mu jàll bu jàllee Kaolack Kaolack yi naka noona Kaolack dafa doy sëkk mbooloo ci daayira ak ca mbooloo yeeg ak délégation yi koy seet yëpp ñu bàyyee ko waa Kaolack bu ñu jógee ba dem Poroxaan nag baaxoon na saa su àggee Poroxaan noppal fa ab ay bis wala ñaar ay bis ñu jublu ci màggal gi màggal gi nag bu ñu ci jubloo ku xam na ne noppal ay dutu mën a am ñëpp dañuy ñëw daayira yi dana ñëw délégation yi di ñëw bokk yi di ñëw am di ñam mii di ñëw ñëpp di ñëw te ku jóg jëm poroxaan itam boo sañoon bu àggee da ko gis ba xam ne moo la tax a jóg ñëw poroxaan moo ne nag kon boobaa bu nekkee tiib ak mbul day réy moom nañ dimb nañ ko dimbale bàyyee ko waa dëkk yee waa dëkk ba ba mu jàll bu demee Kawlax xam na ne Kawlax doy na sëkk mbooloo daayiri na kon nañ mu ñëw poroxaan bu ñëwee poroxaan ku ci mën a egsi poroxaan nag boo gisee ñu boole ko ci màggal gi koo ci xam ne poroxaan sor na ci yow nag nga ko ba mu jógee poroxaan ba si nag ñu woyal liggéey bi fii ndax moom li muy wax mooy liggéey bi rek am fi bàyyi ci liggéey bi lan ne fas yéene nekk fekk noo ñaan mu yàgg fi te wér te ci liggéey bi ñu xam ne lu ci lu ci mënu tayit boo liggéey bi dana ko mën kon la mo loolu mu santaane ñu ko ni ko bëggee santaane ko ni liñ ci gën a leeral itam mooy xam naa ne sëñ bi moom dégg nañ ñun ñëpp ay kàddu yum Cheikh Bass yëkkati woon yoo xam ne moo ko yónni woon ci politique bi ñu dimbale ko ci politique bi nag dimbale ko ci taxut taxut ñu mu ne bu ko kenn nuyooti bu ko kenn siyaare si ndax sëñ bi sëñ ta ah, wax ne boo fi kenn ñëw kon ay woon ku fi ñëw waaye ku fi ñëw di wax waxi politique lay bañ kon ñu baxaan ñu xam ne buñ ñëwee itam ku fi ñëw ku ngir wax loxi bokk mi ngi la koy nangul ku fi ñëw ngir fàttali kolëre mi ngi la koy nangul ku fi ñëw ngir sëriñ bi mi ngi la koy nangul yooyu yëpp bu fi waaye ñëwee dana ko nangul dana ko ànd ak yow te wàllu politique bi moom bu buñ génnee nag nu waaye bëgg def na nga defe na te bàyyi ti mu noppal ko ci politique bi moom waaye nag jëmmi nag ne bu kenn ñëwati sax àggu ca ndax newoon na nañ ko leeral Cheikh Bassi tam waxoon ne nañ ko leeral ndax xam na ne moom am na ñu ko bëggoon tax ma léegi déggee noonu ne Cheikh li mu wax te Cheikh Bass li mu wax dañ ko déggutoon waaye néewut bu kenn ñëw ci sëñ bi sëñ bi xam ne nit ñi mënuñu ñàkk ñëw ci moom waaye nag ñëw politique loo ko wax wala wax politique wala ñëw fii dégg ay caméra ñëw ay film ñëw ñu ñu wax waxi politique wala ñu génn ba ci buntu néeg bi dafa def ay ay ay ay déclaration politique loolu dañ bëgg ñu dimbali nañ ci te waxoon na ne politique bi liñ ci def nañ génn dëkk bi ñu defee ko fa te dëkk bi war may Tuubaa ji ñu boole ci sàmm ko sàmm dëkk bi ci politique loolu la wax na ko waxati ko te leer na leer dañu ko bëggoon boole ci déclaration bi waaye li nga xam ne daal mooy li sëñ bëgg te bëgg ñu dimbali ko ci daal mooy nii mu ko nosee mooy bu demee Tip ñu bàyyee waa Tip bu demee Mbul ñu bàyyee waa Mbul bu demee Kaolack ñu bàyyee waa Kaolack ba gee Poroxaan ko ba xam ne bëgg ngaa ñëw mu def daayira te nga am lu la andi bisimilah koo xam ne nga bëgg ñëw magal siyaare ko ci magal gi ma nga fa déglu bu magal gi jeexee bu dellusee ne ci dellu jaat ci liggéey bi ku ñëw fekk ko fi mu ñaanal la nga dem ba dellusee jàmm ci dé ba dee nga jàmm nga dellusee la waxoon ne nañ ko wax ñëpp dégg ko ñëpp xamee ko noonu te ñu xam ne nii rek la ko bëgg a doxee nee na si weeru décembre bi daal mi ko Tuubaa di di leen fi nekk ci biir ñetti fan yooyu gaaw di weer altine lu ci waaye na programme na ko programme bi ñetti fan yooyu bu bu jógee bu demee ñu bàyyi ko bañ dégg ne àgg na poloxaan ku lu fay ku ko ñëw poloxaan moo xam ab daayira la moo xam kenn ku siyaar ñu fekk ko fa ñu fekk la fa bu je magal jeexee mu dellusiwaat ànd ak nañ ci liggéey bi ànd ak nañ ci liggéey Sëñ Tuubaa ndax loolu mooy yitteem mooy wa wa teefam mooy yéeneem ànd ak nañ ci sëñ bi ñu ci sëñ bi fanaan ci sëñ bi seen lépp de sëñ bi nu jaax ci takk ci sëriñ bi ñoo ngi ñaan nag sunu borom bàyyil na ko te wéral ko te yàggal ko te kàttanal ko bàyyi ko xelam bàyyi ko sangom bàyyi ko lépp ba lim yéene ci lislaam ji yéene ko ci réew mi yéene ko ci dëkk bi sëñ Tuubaa bi yéene ko ci yoon wi lépp mu def ko ni mu ko bëggee ni mu ci bëggee liggéeyal sëñ Tuubaa lépp mu liggéeyal ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nangu ko nangul na ko jàppale ko agréé ko yéeneem ba ni mu ko bëggee mu def ko ni ma mm-hmm. ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégg lu baax baax mu ngi loolu daal la fi salaamaaleykum wa rahmatulah. kon mbokk julli mbokk taalibe yi ñoo ko déggandoo noonu kàddu yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko lool te mee ko wér wàcc suñu jëwriñ sëriñ Cheikh Mbacke mu leeral ko kon mbokk julli di mbokk taalibe yi képp koo xam ne am na loo ci bëgg lu la leer